politique yi doon am ci atum 2020 daanaka dañ ko xamaat ci début atum 2023 mu nekk ay crise ay jamaxloo yuy wane ni fu dëkk bi jëm am na ay jafe-jafe am ñu ko joyanti wante lu luñ ci jot a jàpp mooy mbirum suufu ngor bi yi nga xamante ni andi na bakkan bu rat ak ñu am ay gaañu gaañu ba ci sax talaata bi weesu nga xamante ni ay ñaxtu yu bëri amoon na ci dëkk bi ba mu àndi tamit ay nit yu faat léegi mu mel ni dala ni ñëwaat na ndaxte ki nga xamante ni moo di xalif général di mourides di sëriñ Muntaxa Mbàkke moo jox benn bataaxal ki nga xamante ni moo di président de la république jëmale ko ci bépp waay buy politique ci biir bataaxal bi ñu ngi ciy wax nit ki war a jëfee ngir saxal li di jàmm jàmm ci senegal jàmm ci digganteeg nit ki xalif bi di ci wax nit ñi nu ñu war a mel ci diggante nit ak nit wante tamit ci diggante bépp sénégalais mu wax ni tamit ci Amadou Bamba da daan wax ni bëgg sa réew dafay laaj bolo ak gëm-gëm loolu ñu war ko lal xalif bi wéyal ci respect ci dialogue ci sàmmonteeg sa wóllëre booloo ak jàppalante loolu nekk baat yi nga xamante ni moo lal bataaxal bi yëpp di ñu delloo rek ci jàmm jàmm joojule du am lu dul waxtaan lalu président Macky Sall doon ko wootee jëmmal ko loolu yëpp nag moom moo taxaw ngir suñuy dundina mën a am jàmm suñuy nekkin tamit ngir Sénégal gu mucc ci bépp fitna ak ñawteef